ne tànn naa kii ma doy duy naa ko nay jiite diinem de mat na ngoram mat maanu mat jikko mat xam-xam ba mat ku ko roy am yi wudul jeeti kookaa di sëñ aafe soppeb képp kuy ko ñu roy ci jëf ju baax wala ak njàmbaar gu yee mooti di sëñ aafe am tawféex lool ci sëriñ bi fekk na ko gànnaar daana fa jiite waxtu yu juróom ak naafila alxuraanam ja ak baatam bu neex ba jommal na naar ya doomi sëriñ Momar Anta Sali la ma ca dekkale alxaali sëñ Mbàkke mooy waajuram ak soxna maam Anta Njaay Mbàkke sëriñ Afiya Mbàkke nag turam dëgg-dëgg mooy Cheikh Ahmadul Muxtaar moom nag mi ngi gane àddina ci ama hafrasin di 1288 ca Poroxaan sëriñ Afiya Ahmadul Muxtaar tolloo ci mata dal jàng waajuram dal ko jàng di sëñ Mamour sëñ Mbàkke Mamour Anta Sali moom mooy ko dal jàng waaye bi mu koy jàngal ba to ba mu toll ci robay wa ila haadi aqaam hudan la fekk sëñ daam Abdourahmane ñëwoon ci daara sëñ Mamour Anta Sali ngir doon sàkku ci xam-xam sëñ Mamour Anta Sali jël lenn ci donga yi féetale leen sëñ daam Abdourahmane Euh, sëñ Afi mag Ahmadou Mokhtar mii nag bokkoon ci ñi nga xam ne sëñ Mamour Anta def daf leen féetale woon ak sëñ Daam Abdourahmane jàngi alxuraan ba mokkal nag ba xereñe ci lool nag waajuram yabal ko ci magam ñi nga xam ne ñoo bokk benn waajur muy sëñ Mamour Diarra ndax xam nga sëñ Mamour Diarra dafa am ay jamono booba ci Mbàkke ku jàng alxuraan ba noppi dañ naan dañ ko yóbbu ci sëñ Mor Anta ne sëñ Mamour Diarra ndax booba day mel ne sëñ Mamour Diarra ku mu wéral alxuraan dañ naan sa alxuraan des na ngir xereñe bi sëñ Mamour xereñe woon ci alxuraan foofee nag la ko waajuru sëñ Mamour Anta Sali yabal ba mu àggee ci sëñ Mamoor Jaara def na fa ñetti téeméeri guddi yoo xam ne guddi gu nekk xaw na toog na ci ginnaaw sëñ Mamoor Jaara tari kaamil alxuraan bi ci moom ba sëñ Mamoor li jaasaal ko nit ci man na alxuraan. sëriñ Afia jaar na ci maam Thierno ma doon magam ja mu def ci moom la tax mu doon jàmbaar ja. bi himma ji ñëwee itam sëñ Afia def na xam ne noonu la leen seen waajuru jigéen waxoon ndax boo fekk na sëriñ bi ku yilif ay njabootam la ci biir këram. maanaam kilifa guy yilif ay njabootam waaye nag bi sëñ bi wootee ci ma ci taalibi nag doon nag sa ab sëriñ ak i taalibeem fekk seen waajur waxtaane nañ ko ba tàyyi sëñ soxna Anta Ndiaye Mbacke waxoon na leen seen sëriñ seen seen mag jooju bu leen ci kenn jiitu waaw bu leen ci kenn jiitu bu leen ci kenn jiitu jooju taxoon na moo maam Cheikh Anta ñu teeloon a jël seen bopp joxoon ko sëriñ bi topp ko ba yu bare bari xew ca day bañu guddal jotaay bi waaye comme damay continuer noonu ci sëñ Afe mu sëñ Afe def noonu daal jaayante ak sëriñ bi boobu sëriñ baa ngi Mbacke ko jox def ni taalibi yëpp def takk laxasaay di ko liggéeyal ba ni sëñ bi ñëwee Mbacke Bawal sëñ Afi ànd ak moom Mbacke Bawal ba ni ñëwee ba sëriñ bi ñëw Touba sëñ Afi ànd ak moom Touba foofu itam dafa fi wax lu am solo lu ñu bari xamul sëñ Afi euh, bi sëriñ bi di gis Touba sëriñ Afi la àndal loolu sëñ Afi nettali na ko ñu bari nettali na ko doomam sëñ Xaas nettali na ko doomam it sëñ Abdou Ndakaram ndax kenn ku ci nekk ay nit jëlee nañ ci salaam yi ngeen ne sëñ Afi moo la ko nettali sëñ Afi dafa am ay jamono mu am mu koy nettali mu ne jamono bi sëñ bi di wër dëkk bi moom la àndal nee na keroog yàlla dogal na fii jumaa ji këppi tey bi sëriñ bi di nekkee ci xaal bi moom la fi bàyyi nee na bi ma fi bàyyee dem ci àll bi ba yàgg nee na fa mu doon jullee yor moom ko baax ki nee na fa la ko kàddu bàyyi ko ci suñu borom na ko foofee nga bàyyi sa waajooju de foofu mooy barab ba nee na sëriñ bi daal di weññeeku sëriñ Afia nettali na booba day keroog bi sëriñ bi yesee dafa ñëw na ma Afia mu ne waaw mu ne sama borom xamal ne fii mooy barab sëñ Afia daal ne keroog sëriñ bi julli na fa ñaan na fa nee na lépp loo xam ñaan na fa def na fa lépp loolu baax rek nee sëriñ bi def na ko fa ngir nee na ànd ak ngir mbégte mu rëy ci gis gi mu gis barab bi neena na keroog booba la dégg sëriñ bi daal ne Afia nañ tudd barab bi nee na keroog la sëñ bi tuddee barab ba Touba nee boobu moom sëñ Afia moom la sëriñ bi àndal ko jàpp ba ba am jàpp ne am naa ci lu doy nee noonu laa ko jàppoo euh, loole nag noonu la sëñ Afia nekkee sëñ bi ba sëriñ bi jëm Mbacke Bari bi sëriñ jëmee Mbacke Bari mu ànd ak moom bi sëriñ bi dem ci géej gi daf koo yebal mu dellu si Daaru Salaam ci soxna Anta ak sëñ gaawaan foofu la nekk sëriñ bi nag wax ko nag lu am solo ndax def ko ne yow day afiya nag ma fa nekkal li nga xam ne su ma amoon jotum ne ca maa cay nekkal sama ma ca nekkal muy jàng alxuraan di ko jàngale moo tax bi ñëwee noonu la def bi ñëwee daf tàmbali jàngale alxuraan bi bi ñu ci géej gi nag moom sëriñ afi mu dellu si sëriñ bi ci Daaru Marnaan fekk si ko fi ndax sëriñ bi génn war a dem Mauritanie bi muy dem nag ñu sàkkal ko ay mbooloo yoo xam ne war nañ koo sant waaye sëriñ bi tamit sartal ci képp koo fi fekk si ki nga fekk si na nga ko fekk na na yii daje ci yow na nga mën alxuraan lool mën koo jàng mën koo tari te doo ko xool mën te ko xool boole ko am xam-xam lool te sàmm waaw te ñeme coona waaw ak yéen xam naa yeneen sart bokk na ci waaye yoon woo daal li ma ci bëgg a wax mooy ki jiite woon yoon mooy Sëriñ Afiya sëñ Moussa indi na ko ci bindam eh, ma wax la gaa yi santu daan jëm gànnaar ànd ak Serigne Touba te ñëpp yi jàmbaar njëkkeel Serigne Affe rakkam moo jiite gànnaar googu nag Serigne Affe liggéey Serigne Touba liggéey bu yéeme ndax foofee fa la nekk imam imam bi ndax foofu fa la ko bi sante woon muy jiite naafila muy jiite naafila moom nga dégg ci nett li naafila yooyu ca la ca la ca la amoon ay naari fi nekk di di di xaacu ngir alxuraan Serigne Affe ju neex ni noonu lan taree rek nga xam ne ginnaaw bi mu fi jógee sax wutal ko imam wutal ak njaarim imam daa jafe ba tax sëñ Mbàkke sëñ dégg nga li sëñ Mourou Sow waa njaarim day sëñ affaire tax na neexatu na wutal imam ci la fa door a men yow sëñ Mbàkke kan ngir moom ku mënoon alxuraan la te neex la door a indee sëñ Mbàkke sëñ mooy ki wutu sëñ ci imam waaw sëñ Mbàkke kan Bousso moom sëñ Bousso foofee itam fi la ko sëñ bi wàccee ci liggéey boo xam ne eh, da koy liggéeyal ci wàllu loxo ndax nee ñu sëñ bi da di liggéeyalu dara ci caxeen moom mu daan defar loolu yooyu seen sëñ fi nekk ci di liggéey sëriñ bi daan ne yow day afiya bëggatuma laa seen ci luy liggéey ci loxo damaa bëgg nga nekk ci li nga xam ne li nga xam ne ci laa ne ci laa la bëgg di liggéeyloo mooy euh, nga toog taalibe yi lu xamul di la ko laaj lu mënul di la ko def loo loolu laa sàkku ci yow nga di leen ko defal. rakkam sëriñ Afia moo doyoon sëriñ bi ba mu indi ko ci wetam ca njaareem ngir moo koy seede keroog la xëy def ko naayib ngir saabu gessoo seen ko ca sàppe sa ñépp ko nangu loon ba far ñu bàyyee ko imaama ga gannaaw sëriñ bi jiite na lu yàgg jumaay njaareem ndax ñu bari buñ ko tuddee buñ tuddee njaareem mbaa ku tudd njaareem te xam dara ci histoire njaareem boo boo jëlee sa ñaar yi day mel ne euh, dese nga ci njaareem bi mu ñëwee nag foofee fa la liggéeyal sëriñ bi bi sëriñ bi daal di liggéeyal njaareem woolu ko fa rek daa fekk sëriñ sañ sanc ay dëkk waaye sëriñ Afi doon ko jaamu katub yàlla euh, sëñ bi loolu neexoon ko loolu mel na ni ci sëñ Afi te nee na saa yu saa yu gestoo ci jàkka ji rek nee na day yem ci sëñ Afi mu ne nag daal naa im moom dafa war di ne dafa imam néew mu di wax ne ni mu demee sëñ demee ci moom waaye dafa gis ne saa yi gëstoo suñu jàkk ji rek day yem ci moom kon daal ne kon def na ko muy naayib ci biir naayib googu mu nekk naayib sëñ Tuubaa nag moo waral mu jiite sëñ bi ay julli <laughs> tey loolu la ko sëriñ bi digloon jub jàkk ji la ko bàyyee woon ca jàkk ji ca la génne àdduna kon wax bud rabbaka attaa yatikal yaqin moom day ci ndigal la nekk ba boromam moom ko alhamdulilahi rabbil alamin waaw nekkoon nag almurid saarix nag ku bëgg sëñ Tuubaa ku bëgg sëñ Tuubaa moom sëñ bu ñuy wax maam Cheikh Anta rek wax sëñ Afe leneen lëkkalitam dangay gis ni sëñ Touba dafa fonkoon sëñ Afe ba dëkkoon ak moom. nga xay sëñ aafe rek ko ko da masa jiite wax na góor yàlla gu lewet liggéeykat jàngkatu alxuraan te di ko jàngale sanc dëkk yu bare samp yi daara aafiya la njëkk sanc moom la sëriñ Moodu Farimata jox rakkam sëñ Abdu Lakram fala Cheikh Moustapha Lakram féete teg ci bayti Dakar Njookeen Ciise coon ngir fàggu lu lew ak bay di dunde nekkoon jëmm ju yéeme lool sàmm màndu bokk na ci jaloorey maam Cheikh Anta Mbàkke borom gaawaan moo ñu ganaleel sëriñ bi gannaaw tukki bi ngan lu rëy am na tawféex ju toll nii bi sëriñ bi jógee ci géej gi moom la woolu ca bato ba ne ko Cheikh dem naa ba ñëw tompale sama mbóor waat naa wàcc naa wàccale naa képp ko xam ne moo ma yaakaar lool rey na fa lépp lu dagan ñaari jëm yu yéeme lool te am tawféex loolu ci sëriñ bi suñu borom boole seen lépp lëkkale seenu mbir ñu bokk ñaari wayjur muy soxna maam Anta Njaay Mbàkke ak Maam Mor Anta Sali seen lëpp lëkkaloo ba ci seenu faatu Serigne Touba moo ne woon Serigne Aafiya yaa koy teeru aljana la lëkkale loolu ci baatin ak ci saayir ak ci mbokk sëñ gaawaan dafa feebar njaayam sëñ Aafiya ñëw ci sëñ Touba di ko ñaan pour mu wér sëñ Touba ñaanal ko waaye ba mu génnee dafa ni Aafiya da xamut ni donte benn fan la wala at moo koy jiitoo Seex Anta ndax moo ko war a teeru foofa maanaam nag mu nekk at mi jeex ak at mi dugg maanaam dafa mel ma tax boobu assural dafa mel ni kon nga nekk de décembre ak 1er mu nekk benn fan ba noppi doonum at la sëñ Tuubaa waxoon ne donte benn fan la wala mu at ñoo koy rawante <laughs> ba mu yëgee wér dikk maam Seex Anta ca la waaj fabu dem daaru salaam fala ko suñu borom moomee ci njeexitalu atum 1940 ci ay fan yu néew magam ju tedd ja fekk ji ko yamook ndoorteel 1941 di jamono ju tiis ju lëndëm bu raglu mel ni weer wi ak bi lañu boole jàpp tey boo bi ne ay bés ñaari jëmm yooyu nga xamante ni seen lépp day benn tax waa jamhiyatu tawdihi wa nasri li injaazaati maam Cheikh Issa Diène tànn ñaari jëmm yooyu ngir ñu duy tegtal joxoñ leen waa àdduna ngir ñu am ay royuwaay ak i delluwaay yàlla nanu leen suñu boroom fayal te taas ñu seen barke ci barkeb seen Tuuba gën ma ba ngir maanu na xam bëggee jël bamba ko yar yar daaw ba seexu moodu